man ngeen di tuddee si musi weeru koor bi wax waaw waaw parce que gis nañu lu baax li ngay def si koñ bi yow exemple nga poulo hee laajuma la noppil may wax mu naan en cas exemple exemple dim jeeg nekkal. bëggum. hee booy Café Touba dégg nga booy nii si classe bi weeru koor bi tuddee wun na alquran tuddee wun conférence suñu lewul kaddu ñëw fii dinaan demee ci ba simu gaynde bii nii. mais Pulo. comprendre de. hee naa la wax munoon noppi eh booy dama leen nokku léegi mu continué joon joon joon nga na. léegi yow ànd mbir daal yow léegi ngeen nan nga tudd sax yow lan nga tudd. man Pathé laa tudd. kool gu mu naan Pathé sa bopp bu ñaaw bi ànd ngan daal waaye doon sonn. salaamaaleykum salaam. xeet eh, yow kamee naal de du yéen a ñëwoon daaw bëgg maa tuddee si weer koor wala du yéen. eh kwal man dum su morom de dum war heure bi hiv di boole wax ju bari ngeen may wax lo demal ci yoon yow bulu xanaa nga ngaa gemi ni samba nga xam li muy walis kam na la wax bu sonal kam walis kam sifle kam mu piri rib fekkee am nga li ngay jën wax man li ngay jën ma jaala nga dem si yoon te nga soof si ñaawaay yow bulu xana du ya waxon weeru ko da ngay defal yalla waaw ma ko wax kay min wi non dama defal yalla mu waral ala ndax mu am tiyaab ma ko wa kon jeex na yow di nga am tiyaaba ndax bi fa conférence la ngay tuddee y con unas Wow wow waaw conférence kay te am na loo ci xamul de conférencier bi gën a mag ci ah wow, bang lo que bang baax na loolu yàlla bëgg na ko neex na ba mu tuddee conférence kay damay kontaan def xaalis bu bëri li may bañ kay caataan yooyu ay simba ay ay tànn beer islam bëgg ah dëgg la ndax jaamu yàlla moo gën topp seytaane. waaw baax na yee yaaxaa jàmm demal ba suba nga ñëw mu jox la suñu participation. mami tottuma enveloppe ba kaasi keew dinaa la jox enveloppe bu duun boo ko yenu di jël saret bas doo ko attan. waaw kon ba suba incha allah. yow conférence bi ba léegi waxoon ban oustaz mooy def waxtaan bi kan mooy waxal yàlla si si bi. yii oustaz bu mag la kay loolu moom surprise la. koo di surprise surprise mojaani. yow suma boo ñëwee wax ma tur instant bi si pet nga déey ma ko du ma ko wax kenn man dama garde ségrégation waaw soxna naa def man la pull waaw ñëw naa si kër léegi-léegi fekk ma la bàyyi naa la enveloppe cent mille francs ak dix mille francs transport bi ngeen di ñëwee pour conférence bi ngeen ma tuddee la xam nga mbiru yàlla nga bàyyi ko xel dama ciy def sumu xaalis yëpp keem naa ko noonu loolu mooy sama participation si kew bi jam nga kalis bi waa baax na léegi noonu xam nga lan laa bugg kii jàng conférence bi di waxtan na ma tàggal sumu maam man loolu mu joxe sumu na ma wala riise ci karam koñ bi kam ni pulu koñ bi la nekh <laughs> ah waaw waaw waaw de nga bëgg ñew jobu ma ci ki waxtan di conférence bi ñu def débriefing avant conférence bi waaw dinaa la kar ma ngi fi thank you salaamaaleykum. Pulo mon ami. waaleykum salaam El Hadj Suluk Ndiaye amul Pulo mon ami amul Pulo mon ennemi Pulo mon dëkkandoo jox ma sumu kaalis bor bi dafa yàgg fay ma sumu kaalis. Pulo kalma kalma teeyal. kaw ma kalma ma kaw ma teeyal teeyum laa ma sumu kaalis toxtam kaalisam. xool ko mu naan fay ma sama xaalis mel ni dama ko yoreel ay millions. wax ji dum ko mun di damaa woor jox ma sumay 30 000 sama juróom benn junni 30 000 am toxtam du wala mu sopp ma. 30 000 du xaalis weccet la c'est de la weccet dans les tenn de xaalis. kooku ñu naan daa moom tenn xaalis les buy de xaalis. yow barki démb la si jabar bi ndumbe ñëw fii lépp ceeb lépp kirmasi lépp sax korom. a kirmasi bu juróom bii nga nekk fii naan tenn de xaalis ala. Pulo wax ji doy na waxal ñaata laa la ma fay la. 30 nga ma yoreel. ak kilo ceeb ak ñetti kirmasi ak. am sa xaalis. i xaalantaa comme dum laa bi di. 50 000 moo ngi noonu te nga jël weccet bi ma donc wax ñaar yoon indil ciao pulo wa digal yow ya, waro woo kii fu jele jëlee kan? ya, est ce que suluk di fara maso ya, est ce que di ci lobby bi la la illallah boy kam touba gis nga semaine bi di ñew walla dem na toj koñ bi toj ko bam rajax toj ba jamm lepp lo way yow conférence bi ñu tuddé xana denk fat yow lay andal de wax nga deug man faté won nako ko sax bul ko faté nak waro ko faté bay ko kel joxe na suma enveloppe bu dur ñoy and nga top suma ginaaw ñu naan pulo nga naan eskay naan ni te yow suma dom ndey nga dañoo yag su mu nga naanee fa aspirin non yow kay nopil rek suma wacce tay damay wër sama bloc bu jaune bi passé ko ba mu tali kon dim lim rek dajji sa kondaane bi ngay wajal pour magal bi ni jënd ci yére bu pestax nga top suma ginaaw lii conférence la mbirub diine la bëgguma ngay sol sa t-shirt yi furaas yi ak sa kabu dilim bi <laughs> ah danga mer ku lay wax dégg ngay bañ yaa xam sa affaire na xaar mu tëj boutique bi dem sañ ñetti ñetti abdu bii mu ñëw kale bi jigéen bi organise conférence daf mu war a jël si ñu dem si kuy waxtaan conférence bi ñu def débriefing avant match bi way mais pour la yow sañse nga de merci boy café Touba kam nga rek ma amul jot sañse ndax boutique bi mais dama kam mariage couleur couleur bi ñoy and gis nga ñaar yi ñoy sañse bi 3e moy dindi cat bi pulo nak bama la xamee ba léegi yaangi soga soog assalamu alaykum ah pulo sañse nga de ni da nga def ma sha allah sha allah sha allah waxal kar kar waxal njaga njaay waxal super bul ma sha allah bo waxna ma sha allah tay mom conférencier bi bu la gisé dina xam ne lañ tuddé bis bi de pare nga mun nañ dema ah, go go go go go <laughs>